ci seen beneen numéro ci seen émission Made in Galsen tey nag boo leen sama kanam ngeen xamné ne changé par rapport ak yeneen émission yi ndax invité bi ñu am mu tudd Mam Diara Sen di yëngatu ci walu make-up ak li nga xamante ne moom coiffure ay musóor yooyu yëpp da kay def la tay ñu yaatal émission bi rek dama koy bàyyi mu daldi ñu nuyoog suñu mbokku internet yi après ñu jaar di seet li nga xamante moy waxtaan Mam Diara Diarra nuyu naa maa ngi lay fay Mia di nuyu suñu mbokk internet yi waa Kulandia TV di kontaan ci teewaay bi. alors euh, Mame Diarra Sène mën nga ñoo wax rek sa parcours. waaw sama parcours nag mooy depuis ma am 13 ans ba léegi euh, dama mus a maquillage donc dama teel a bàyyi jàng voilà pour euh, di liggéey ak sama papa ci ci milieu art bi di jaay ay tableau d'art ak ay objets tout ça donc. Euh, maa amee treize ans sama papa xam nga rek nanguwul woon maquillage bi ak yooyu noon donc dama doon nëbbatu di ko def donc maa ngi doon liggéey en même temps mais dama doon nëbbatu nekk ci YouTube bi di jàng maquillage di ko jàng sama bopp yi tout ça vu que j'aimais bien parfois dama daan génn mu xool ne xam ne maquillé wu naa ma demal nga sol mu <laughs> donc tout le temps dama doon nëbbatu di di di di jàng tout le temps ci YouTube bi voilà boobu fekk sax ci amagul sa xewagul mu tudd TikTok. xewagul. donc euh, ci YouTube laa jàngee ba commencé di perfectionner wu tout ça gars après ci laa commencé dugal ay contenu fekk TikTok xew ay deux mille deux mille ñaata ay deux mille treize deux ci laay commencé dugal continuer tout ça ba nit ñi xam ma ci maquillage tout tout tuuti rek après nag ci laa commencé nag di am ay clientes parfois di maquiller tout ça donc je suis daan def ay contenu ring light sax aw ko ndax les moyens donc boobu bi ko bàyyi wax samay parents ni leen jëndal ma ring light donc ay ban laa doon tegle jël sama téléphone daal commencé def samay vidéo et tout ça donc après samay déplacement ak maquillage yi ma doon def à rapporter revenus ba ma jënd ring light et tout ça donc commencé daa may contenu yu xaw a gën a leer tuuti. Mhm. donc. Euh, hmm. loolu moo tax. waaw bëgg li nga xamante ne moom mooy maquillage. ci biir waxtaan wax nga ne nekkul loo xamante ne tey da nga def formation. waaw def da dem ci à travers les réseaux sociaux pour mën a jàng li nga xamante ne moom maquillage. Hmm. alors ma lay laajte en tant que jeune entrepreneur yow nga créé sa entreprise déjà historique gu Diarra Smile pourquoi le nom waaw Diarra Ismaël déjà avant c'était les tutos de Diarra bi ma koy door a def donc les tutos de Diarra laa defoon léegi ma dem ba ci biir euh, naka laa ko man a expliquer li may refléter ak man li ma doon genre tout le temps ku ma xam-xam ni tout le temps damay kaf di foo di ree voilà quoi avec le smile voilà voilà toujours jovial donc je me suis dit que Diarra Ismaël voilà dina ma dina ma dina ma kii en fait dina ma voilà damay refléter éco aussi daf may daf may représenté parce que ku ma nekkal ak ak ak lu may munti def je suis toujours voilà souriante donc loolu moo tax ma change tout bi def jaara jaara jaara Smile. jaara Smile alors en tant que jeune entrepreneur nan ngay gisee entrepreneuriat fii fini au Sénégal. waaw au Sénégal nag xawul xawul yomb donc donc beneen sans aussi faa nga gëm sa bopp tuuti et que aussi li ngay def tamit mu nekk sa passion pour dëgërlu parce que tey. nekkul un an nekkul deux ans laa ci nekk nekk naa ci ay at yu bëree bëree bëri dajanteeg ay tolof tolof yu bëri et que aussi tey boo amul courage ak boo amul aussi euh, ñu la jàppale tey tey tey doo doo kii doo dem. waaw doo dem. alors Diarra te nga ñëw lan moo la may courage ba nga ne dangay defar yow sa propre entreprise. doo dem naan tey jii da ngay fekk ji leen wala leneen mais déplacement sax di nga koy def. waaw mais lu ci bëri da nga toog lan moo la may courage boobu noonu nga dugg ci entrepreneuriat. waaw li may courage tey mooy tey par exemple euh, nee nañ nee am sa soxla làmb sa poche fajal ko sa bopp loolu dara gënu koo neex donc loolu tey moo may tey courage et que aussi tey bëgg aussi gën a gën a gën a gën a amélioré wu ci ci métier bi ma nekk ak aussi. Euh, naka laa ko mën a expliquer xam nga tey par exemple boo boo commencé dara tey li ngay ñaan yàlla mooy mooy gën ko améliorer ko aussi gën ci gis sa bopp. donc tey loolu moo ma gën a may courage tey man yi xaaral ma jug ma créer sama propre entreprise aussi ma amal sama bopp mënal sama bopp bañ a yaakaar si kenn surtout voilà loolu moo ma gën a may may courage boobu noonu. waaw Diarra Smile lay def. waaw maquillage lay def euh, musóor ak coiffure ak aussi formation voilà pour euh, pour jàngal sama sama mbokku jigéen ñi naka la ñuy mën a maquiller woo surtout ñi nga xamante nañ ko bëgg def métier mais aussi euh, ñi nga xamante ni dañ ko dañuy bëgg aussi di mën a maquiller seen bopp sans pour autant dem ci salon ñu leen di maquiller tout ça mhm. ndax sama liggéey moo leen neex ñu koy gis ci ci internet bi.

parce que à chaque fois boo dugalee benn vidéo dañ euh, defal ñu tuto marché mm. relation à travers les réseaux sociaux ñu cee expliquer relation c'est juste exceptionnel parce que samay samay abonné presque mën naa samay sœur lañ am ci ay yaay parfois daf ni ma ans mais sa fan donc loolu waaw donc donc donc loolu noonu vraiment lu lu neex la ci xol vraiment parfois da nga gis ñoo xamante tamit ñu la bëgg dañ lay dafa la yónnee ay commentaires yoo xamante ni mooy loolu mais tey euh, communauté bi ma am foor na bépp foor boo xamante ni ku ma wax dara loo xamante ni ndaw la sax du ma métti parce que ñoom ñooy ñëw xeexal ma xuloo xuloo bi <laughs> voilà man ma toog di kii donc vraiment ñooñu mënu leen mënu leen fay. Mhm. ma ne ko mënu ma leen fay def deful deful lu dul neex. <laughs> yow gis nañ li nga xamante ne moom mooy euh, Diarra Smile bi comme li nga wax nga xamante ne moom def ak aussi entrepreneuriat mm. Sénégal yombul. ci gis loo xamante ne tey jii waaw loolu moom euh, yàgg. boo waaw am naa am naa ay jaar-jaar yoo xamante ni xaw na xaw na métti tuuti parce que parfois di nga di nga di comme comme woon di papa di nga déplacé wu. nga maquiller nit maquiller ko ba pare du la nangoo fay wala par exemple nga jox nga jox nit cours ba pare nanguwu la fay xam nga yooyu xam xam nga tamit neexul mais musuma toog toog toog ne man maa ngi découragé que maa ngi bàyyi parce que benn instant am na am na au fond loo xamante ni lu mu métti métti métti je me dis que waruma découragé waruma bàyyi parfois nag ça sa xol sedd parfois nga di nga jug après danga naan tu vas te tu vas te parce que noonu la métier boo gis rek day metti mais voilà quoi tôt da gis résultat donc mm. mm. yoo xamante ne yaa ngi koy dénk jeune entrepreneur yi ñi nekk vraiment ñi bëgg amal seen bopp aussi bëgg entreprendre. Euh, benn instant faaw nga am courage am am tuuti jom comme on dit pas tuuti jom jom bu bëri <laughs> am jom am fayda am fulla aussi ci li ngay liggéey vraiment pour euh, pour entreprendre parce que tamit mett euh, yombul metti na donc courage courage rek moo la ci moo la ci moo la ci mën a génnee donc vraiment maa ngi leen di maa ngi leen di kii bu baax di leen encourager ngeen ngeen topp surtout seen passion topp li ngeen bëgg def et que aussi bañ jàpp bañ bàyyi rek incha allah xëcc bu dagul dikk. <laughs> alors jàpp bañ a bàyyi. comme mm. Diarra Ismaïl nga xamante ne moom lañu ñu seet si fii nii ci Cité Fadia ñu muy dénk li nga xamante ne moom mooy ndaw yi Diarra ma lay laajte rek tey jii nii nan nga gisee jeunes yi parce que léegi ñëppay entreprendre. Mm. ku ci nekk même bu dee sax beñee bu nga xamante ne. yaa ngi mm. koy jaay yaa ngi ciy gis sa bopp gis nañu ndaw yi léegi dañoo gën a am jom. muy góor di jigéen. aspect boobu noonu kenn jox leen de ñoom ñooy dugal di demal seen loolu defuma lu dul rafetlu ko ndax man na ñoom laa mel. tey jii tey yaakaaruma ci kenn tey tey lu ma lu ma joxul samay samay parents wala lu ma joxul kii yaakaaruma ko ci keneen donc donc donc ñooñu defuma lu dul rafetlu ko papa damay sax romb gis sama moromu jigéen gàdd lu diis. gàddu ay karaafu café wala dara damay kontaan parce que damay xam. kii jom jom ak fulla ak fayda moo tax mu jug et que aussi bañ kenn ku ko yab loolu moo tax mu jug di ko def donc vraiment def ma lu rafetlu ko loolu di leen encouragé vraiment. alors sànq da nga wax ne da ngay def ay section hmm. maanaam ñi nga xamante ne tey ñoo bëgg a def maquillage. waaw ñi nga xamante ne mënuñu est ce que mën nga ñoo gën a approfondir section bi lan lan lay def ndax daa am ñoo xamante ne dañuy ñëw spécialement pour ay musoor wala pour ay maquillage kese. waaw si am na ñoo xamante ne dañuy ñëw spécialement pour pour pour maquillage am ñoo xamante ne dañuy ñëw spécialement pour. pour musóor mais man boo ñëw dama naan la nga boole yëpp mooy gën parce que tey par exemple mën nga dem ba ci biir nga bëgg ko mën nga ne ah jaaroon naa si jaar Ismaïla waaye ko donc man boo ñëwee dama lay proposer nga def nga def lépp nga jàng lépp comme ça tey boo génnee rek doo ko réccu donc donc donc voilà. waaw. maanaam kuy ñëw da mooy xamante ne da koy da koy wala mu surtout maquillage ak musóor. xam nga tay par exemple day am ñoo xamanteni ni ñoom duñu laal mèche wala dara loolu mën nga comprendre mais maquillage ak musoor boy def maquillage xam nga tey musóor tamit ci la ci la bokalé donc nga boole ñaari benn saa mo gën mais nak nit ñi euh, genre euh, élèves elles ont libre choix tay bu ñëwé par exemple ni par exemple nga ñëw né né ki né individuellement man may jàng pour sama bop bu la nexé mhm. mën nga def maquillage sans pour autant nga def musoor waaw mën nga def maquillage rek bu la nexé

Aïki, kii ay nit di ma nan laaj ma ma voilà mais produit bi ngay utiliser fond de bi Mais pourquoi pas ma jël produit Mais may utiliser ma ma leen koy fournir mais nekkul pour teint noir kese c'est vrai que xaw naa leen favoriser parce que teint noir ñun ko voilà quoi voilà dara daaxu ko donc en plus de ça pour de teint teint noir xam nga wul donc ni euh, ci bëri ni ñëw mun sa teint noir là, à waaye fond de teint bu ma jënd rek clair

et que aussi euh, di ñaanal di len ñaanal euh, émission bi jëm kanam vraiment nak amna solo trop li ngeen def amna solo trop vraiment di len ñaanal ci kaw ci kanam rek inshallah donc du courage. alors tay mën nga joxe sa numéro ak say page pour ñi nga xamante ne dañ lay seetaan. waaw sama numéro 77 861 59 96 donc sama sama page euh, Instagram TikTok ak Facebook page yépp donc Diarra Smile la la la nekk wala les tutos de Diarra.